sëñ Fallou Fallou laay doxantoo Fallou lay ree sëñ ma lay ree sëñ Fallu ngalam bi soda mu ngi lay siyaar sëñ Fallu bëgg Fallu moo neex sëñ Fallu sopp Fallu moo neex gëm sëñ Fallu moo neex sa lépp day valeur yaa di sam su soda sëñ Fallou sëñ Fallou bu soppee sëñ Fallou rek wéyal sëñ Fallou sëñ Fallou bëgg Fallou moo neex nanu gaa yi ndax neex kuy bëgg Fallou wanewul Fallou jar na feeteel sëñ Fallou sëñ ma jaxle Fallou ngalam bi soodaan ñu ngi lay siyaare wallaay bëgg fal bi maa leen ñëw bu wér wér ngalam bi soodaan ñu ngi lay siyaare wallaay bëgg fal bi yéen raw ngeen bu wér wér ngalam bi soodaan Omar waay yàlla dëgg dëgg mi jàpp Serigne Sall nit bu baax ki am kenn amu ko. ñu ne ki ñu am kenn amu ko mën kenn mënu dina nga fal mu jógelu taxaw wax ca kaw maa bëgg falu galam bi soo daan ñu ngi lay siyaar ma ne dina nga fal mu jógelu taxaw wax ca kaw maa bëgg falu galam bi soo daan ñu ngi lay siyaar man maa bëgg fal bëgg fal bëgg jaani sax bëgg fal galam bi soo daan ñu ngi lay siyaar bëgg fal mën na bëgg fan la mel ko ngalam bi soo daat ma ngi lay siyaar bëgg fan assurance la bëgg fan gàllaaj la ko ngalam bi soo daat ma ngi lay siyaar bëgg fan bu jaaxle bëgg fan berdaani ko ngalam bi soo daat ma ngi lay siyaar bëgg fan jant lay doon ñi caw caw ngay sore ngalam bi soo daat gi lay siyaare bëgg fàllu jant ngay doon coow coow ngay sore ngalam bi soo daan ñoo ngi lay siyaare sa moroom mu nit tëkk la mu tere laa nelaw xamoo yàlla ngalam bi soo daan ñoo ngi lay siyaare yaa rek sa moroom mu nit tëkk la Sifalo, sifalo, sifalo, كواسف الأرض بحريبة اليوم يوم كنت كواسف الأرض بحريبة اليوم يوم كنت كما جاء أم أم بيدين ku bëgg dundu dundu gu feex ku bëgg yàlla di la suturaal la ca kaw loo tudd ku bëgg am am dangay daylu ku bëgg dundu dundu gu feex ku bëgg yàlla di la suturaal la ca lëf laay nag moom amu fi bansoon bu bansoon bu ku bëgg am ak dangay bay lu ku bëgg dund dund bu fees ku bëgg yàlla di la suturaal ku bëgg yàlla teg la ca kaw anay bàyyi jëm nëf laay nag moom amu fi ba sonn ba sonn ba sonn baaxal muy sa njëriñ xamal ni dee du moo tax nga war a tiit am ni yàlla lu ñu lay gis moo tax nga war a mus sàmmal ko lëre man nga bëri ku bëgg la bu la àdduna bi jëy ala foog nga yaa gën nëpp yow bu yàq deru nit nañ bàyyi yàq deru nit Cheikh Abdou Karim bëggul yàq deru nit dëgg dëgg am am doy nu sant yàlla bu la may xam ne am na koy ëppale adduna bi nag def jël jugal ca njël fu dugg mbaax sauf si sa jëf def la ko war lu la war kenn du la ko defal yow sa wërsëg kenn mënu koo jël yow sa wërsëg kenn mënu koo jël yow sa wërsëg kenn mënu koo jël yow sa wërsëg kenn mënu koo jël Niyinamba, Niyinamba, Niyinamba. Niyinamba, Niyinamba, Niyinamba. baax ay ñaare masaani ko jibal mama bari doole ñu mun ñi bamba ñu wex ñi bamba ñu ñëpp bamba mama bari doole jubay duubal ay ñaare masaani ko jibal mama bari doole sama rakk ji Omar man lay bëggee yow xam na ne dama la bëgg bëgg boo xam ne Ousseynou ñun xam na si dara vraiment or ku baax la sànq bu ma bëggee xam koñ bi Babacar Babacar sànq bi may Babacar accident sànq depuis dix-huit heures ma boobu Omar ma waroon tëkkal ba am ak sa vingt heures naa ma dégg dégg dégg dégg dégg sabaraka jibinai wani kawar bayan bambam bamba fara bambam na sara bamba fara bambam na sara bamba fara bambam na sara bamba fara bambam na sara dauni jina ya sama wanda ya mutu da bolo liga ya sama bamba liga ya sama Aliou jërëjëf am problème ci sa biir néegu sëy moo xam euh, kattan bu néew la wala manqué man yu wala euh, sax jafe-jafe yi euh, gaaw a daanu. seen gam kàttan nag dafa ñëw pour saafara leen bépp tawat bu ngeen di jàkkoonteel ci seen néegu sëy ku bëgg si gam kàttan boobu da ngay woote ci 77 490 09 20 ak seen gam kàttan jàngoro yi sëy dafa jeex tàkk ci même réew.